بسم الله بلا مناي بسم الله أعوذ بالله السميع العليم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bu ñu santee sunu borom bi subhaanahu wa taala di seede ne amul benn buur bu moom mbokk yi ñu ngi waajal li nga xam ne mooy sunna mu xàkkada muy tabaski tabaski nag buñ ko waxee ah, xel yëpp dinañ dem ci xar su ko defee nag ñu fas yéene ci def ay point yoo xamante bi ngir def ci am njàngat muy njàngatum sunna suñu nee tabaski nag dinañ wax suñu maam dinañ indi suñu maam Ibrahima ak Ismaïl ak Haajara mu yaay ji ndax euh, boo xoolee sabab tabaski li ko indi mooy suñu maam Ibrahima moo géntan sunu boroom na ko rendil sa doom ji muy Ismaïl sabab bi foofu la jaaree inni ara fil manaami an asbahuka fansu masatare bi aay bi ñëwee ba dal ci kawam bi mu xëyee wax ko doom ji doom ji daf ko xamal na ko yaa abati ifa'al ma tumuru sa tajidooni insha allahu mina saabiriin ki nga xamante bi mooy Ibrahima bi mu xëyee woo doom ji na ko sama borom dafa wax ne naa la rendi daf koo xamal na ko man de bu li lu bàyyi ko ci yalla la taxaw na pour dé bi loolu amé nak suñu borom doon leen nattu xol ba xam li ñu def ak bi ñu démé ba Ibrahima jël intention bëgg a rendi ki nga xamanté bi moy Ismaïl mu gis ne xolum ñewante tàmbali am mu ne ko mu bëggé rendi jëlal takkal samay gët ndax su ma la dee xool nga may xool doo ma rendi nga xam ne kon la jël na intention pour dee ndax ndigal la loo xamante bi mi ngi jógee ci sunu borom subhanahu wa taala ndax xam nga yonente dafa am ñett yoo xamante bi dafa araam ci ñoom ñett yooyu ñooy wax lu nekku dëgg ak wor wor yàlla ak nëbbu dëgg loolu dafa araam ci yonent moo tax bi mu géntee suñu boroom na ko rendi sa doom ji bi mu xëyee dafa daal jublu ci loolu waaye taxaw tam pour def loolu bi yàlla atee biñ demee ba dem ba jël paaka bi ba dox diggante mag rendi ko nag ci la sunu borom yabalee Seydina Jibril mu wàcce xar ci kaw suuf pour weccoo ko ak kii nga xamante ne bii mooy Ismaïl nga xam ne yonent yàlla Ibrahima bi muy rendi wóoru ko ne rendiwul doom ji bi mu siggee nag ci la daal di gis nga xam ne ndeke li mu doon rendi kon du doom ji ndeke xar la kon ndigal li foofu la bàyyi ko xar nag doon miracle moo xamante bi sunu boroom moo ñu ko jox ngir mu doon teraanga ci bànni Aadama su ko defee nag loolu moo indi tabaski bu ko defee liñ ci soxla mooy xar mi na mat mat gi nag mooy ban façon mat la lan ci bëgg mooy xar mi na foq lu ñuy wax foq benn wala foq ñaar foq benn mooy lan mooy at mu nekk at xar at at mu ne da ciy foq benn kon bu matee ñaari at mën na tabaski bu matee benn at mën na tabaski su ko defee kii ki itam daa war a xam xar mi geen bi warta manqué ba ëpp béjjén bi warta dam waaye warta doon xar moo xam dafa lompoñ lompoñ mooy rey mu dee rey mu dee waaye warta doon tam xar moo xamante bi dafa muuma warta doon xar moo xam tam dafa silmaxa mooy xar mu du gis waaye warta doon xar moo xamante bi dafa mbuuraan mbuuraan nag bu ñu ko waxee mooy mauvaise haleine mooy gémmin gu xasaw ci xar warta doon tam xar moo xamante bi du mën a tëb waaye warta doon xar moo xamante bi itam day say xar moo xam ne dafa dof kon xar min soxla mooy xar moo xam ne dafa mat matale sart yooyu moo tax tabaski soxla xar moo xamante bi dafa mat su matee mat ñaari at wala benn at ak nangam mën na tabaski waaye su fekkee ne xar mi dafa am góom te yaakaaru ci ak wér fekk tabaski matut tabaski su fekkee ne geen bi dafa gàtt gàttaay boo xamante bi boo xoolee li des li dagg ma ko ëpp tabaski comme exemple bi geen bi bu fekkee ne dafa toll fii matul tabaski su fekkee ne dem béjjén bi dafa dam ba pare am góom te yaakaaru fi mu wér fi fekk tabaski mat matul tabaski bu fekkee ne tam da gis ne maanaam euh, bët yi dafa dafa gumba matul tabaski so ubbe game itam tam fontu ko xol ne dafa am ngat ngat gi moy dafa am jangoro ci bir lolay da ngay gis ne dal manki na kon l'islam lim ci soxla moy mat mat matale su ko defé lolou moy sarti so soo ba amulo melokan wu mel non nak la ci top moy tapangé waaye liñu soxla ca bu ñëk ba mom lañu soxla ci tapangé bi faaw tam mu mat comme façon boobu su ko defee loolu mooy tax ñu ne la mën na tabaski waaye su fekkee ne lii ñu la wax nag manqué na matul tabaski su ko defee ki nga xamante ne dafay rendi xarum tabaski maanaam paaka loxo joor mooy téye paaka kon xar mi mi ngi tëddee côté càmmooñ ci nit boo taxawee jiblu penku sa côté càmmooñ loxo yum càmmooñ bi kon moo war a téye fii su ko defee booy rendi itam bo xamut foy tek paka ba da ngay jël nopp xarmi nat ko fimu yam fo nga war tek paka ba ndax bari ñoo xamante bi dañuy ñàdd bari ñoo xam dañuy kut am ñoo xam xamuñ fuñu tek paka ba dañuy rendi rek na dé rek ray ak rendi ñaar yu bokul la su ko kon sarti rendi yi so so xamul fi nga tek paka bi fexel ba jël nopp xarmi tek ko fimu yam ci baat ba foofu nga tek ko paka ba non la rendé xar su ko defé ki ren itam kiñ ci soxla moy ku am xel am doole rendi am pak bu ñaw boy ren di nga tambalé ci tour yalla bismillah bu deret gëné nga na allahu akbar lool moy sat ren di nga bañ nga bañ fa nek nan bismillahi rahmaani rahim ak nangam ak loolu sa amut manam du du sàtt rendi sàtt rendi mooy bismillah bu deret génnee nga ne allahu akbar loolu lañuy ñuy rendee su ko defee anamu rendi ni moom mooy li ñu jàngale rek nopp nopp xar bi daal boo ko tegee ci baat bi fi mu yem rek foofu ngay teg paaka ba daal di rendi bu deret ji génnee rek nga daal di sàbbaal suñu borom su ko defee nag loolu daal mooy tabaski xam naa ne ñu ñëw ci kanam àggale yeneen point yi ci des incha allah. kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله السميع العليم مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واو كون سين إيميسيون باغوتيف باتاي نيو نتاي تاخوات سي بوين ييغا خامتيني بي موي بوين خاروم تبسكي xarum tabaski nak nek miracle mo xamanteni bi wax nañ li indi manam maanaam tabaski ndax bo xolé suñu mam Ibrahima ci la tabaski jaarale wàcc ci dom ji di Ismaïl kala bi nga xamanteni bi suñu mam Ibrahima gentina li nga xamanteni bi moy mooy tabaski bi maanaam suñu borom nako rendil ki nga xamanteni moy Ismaïl bi mu xëyee daf ko daal wo nako nak suma borom nee na na la rendi euh, bi mu ko waxee Ismaïl di doom ji moom tegu ci baat daf ko daal nangul nangul googu moo nangul nag moo tax tey jii mission moomu nga xamante ne bii moo war na continuer nga xam ne kenn ku nekk sa sa taaw lañu waral na rendi yàlla àttewut loola waaye ci baaxu sunu borom mu soppi ko ngir lan ngir nanguk yonte yalla ibrahima ak nanguk ismail kon mbokk yi taxaw seetlu bi war taxaw seetlu mooy ndigal lu am solo la ci doomu aadama waaye jëfe ndigal lu am solo la ci doomu aadama ndax sunu maam ibrahima bi mu géntee loolu su fekkee ne jëfewul ndigalu sunu borom li sunu borom kat dina xam ne kon kii kat maanaam ndigal li mu war a waaye dëggu gi mu dëggu ci aman pas pasub wara rendi doom ji moo tax sunu borom sensé ñu programme bii nga xamante ni bii kenn ku nekk mu war na doon sa taaw yàlla sensé programme boobu ba rendi xar kon yàlla nu yàlla fayal sunu maam Ibrahima waaye kenn ku nekk mën cee def am njàngat njàngat moo xamante ni bii. dina tax doo xëccoo tabaski waaye dina tax doo coow coowul tabaski naan awma xar mu mag xar mu ndaw xar mu nàngam ndax boo xalaatee ne xar mi mën naa doon yow rek kon cool yi defe naa ne daal di bari su ko defee kon tabaski mi ngi jaaree ci sunu maam Ibrahima wàcc ci doom ji di Ismaila nga xam ne ci foofee la tabaski jaare su ko defee ne kon xar njariñ la mooy lan mooy gannaaw ba ñu ko rendee ba noppi nag la ca des lépp la ca des lépp sunu borom soxlaatu ci dara waaw kon nag mag ñi daanañ jëfandikoo li nga xamante ni bii mooy der bi ndax ci xar ngay gis ñu defar ko ba mu baax der ba yóbbu ko ci jàkka di ci julli leneen lu du xar doo ko gis kon xar ndeke teraanga ji ak tedd nga ji yàgg na mag ñi daanañ jël derub tabaski daan ci ñaan seen aajo sunu borom di ko di ko di ko nangu loolu li ko waral mooy nangu nangu bi nekk ci tabaski ndax sunu borom dafa am continuité sunu dafa am continuité continuité boobu mu am nag moo tax lépp loo bëgg ci tabaski boo ci dogoo ñaan ci rek yàlla mën na ko yombal xar nag doon miracle moo xamante ne bii boo xoolee baat bi ngeen tuddee xar soo xoolee ma indi ci ay démonstration pour nit ñi mën koo bàyyi ndax boo xoolee xar mi ngi doon hmm? lii mooy xar su ko defee xar jàpp na tour wi ñuy wax allahu jàpp xayyu xayyoomu baduwu wadoodu haadi juróom benn tur yàlla yoo xamante bi boo xoolee adat bi jàpp na ko def na nii boo ne nii kon xar moo nekk noonu su ko defee ñu def démonstration pour nit ñi xam ne xarkat ndekkee dafa lëmasoo ak tur yàlla léegi bi nee xar kon allahu mi ngi ci baat bii ñu wax xayu mi ngi ci baat bi ñuy wax xëyoomu mi ngi ci baat bi ñuy wax baduw mi ngi ci baat bi ñuy wax wadoodu mi ngi ci cinq six da gis ne allahu xayu xayu xayoomu badduuhu wadoodu haadi allahu soo ko calculer mi ngi taxaw ci 66 suñu toll nii boo calculer araf yi yépp mi ngi taxaw ci chiffre 300 xar mi boo calculer mi ngi sax taxaw ci chiffre trois kon mbootu xar commencé naa génn ak bantam su ko defee ñu dëndee ko xar xarum tabaski tendre gar bi daaj ko ay kenu nga xam day nekk ci suuf ba mu am juróom-ñaari fan ñu jël li nga xam ne mooy nepp nepp ak doomu taal bu ma tee juróom-ñaari fan lal ko wulli ba mu nooy der boo dee ijaab la ci kaw kay fees na muy feesee bañ a dagg benn koñ ndax xar bu si bu fekkee ne boole woo ci bopp ba koñ yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci xar mi yépp lépp mu ngi tënku ci fukk ñiy fees te mën a fees lii may wax ñoom xañ na ñoom ko gën a xam moo tax kon fees du caaginu rek da ngay jël fexe ba tàqale der bi ak yàpp bi waaye nekk dafa am anim boo xamante bi soo ko defee loolee dana la di gën su ko defee ci bisub tabaski boobu bu yàlla attee kum ci yóbbu bu feesee xar mi ba génnee ras wi balaa laal suuf am na benn baat bu ñuy wax muddu haamataani muddu haamataani soo ko bindee ci kaw res wi encre boo ko bindee mu yàbbi rek baax na nga lakk ko ba mu ñor njaboot gi ku ci jëfandiku yàlla mën na laa musal ci ayu kaso res wi boo ci bindee baat bi nga xam ne mooy mudd haamataani soo ko lakkee ba mu ñor njaboot gi ku ci jëfandikoo yàlla mën na laa musal ci ayu kaso te loolu tam yaa ko mën a amee ci bisu tabaski nga xam ne du du yomba dab dabaatal su ko defee li nga xamante ni moom la wax élégance ñu may wax fasaha ci arab lan ñu xarum tabaski bi bu yàlla attee nit ki am ko ci bisu tabaski bi. am ko ci bisu tabaski bi dagg ca jël lu toll ci litre ndox bind saaru ya xabbasa ba mu jeex mu xiiwee ko ko. mu doon saafara si mu togg ko bu ñoree mu naan ñeex mi su ko defee kookee lu mu wax nit ñi dañ ko dégg dina am élégance dina am fasaaxa kaddu gi macha allah dina mel ni xar ndax xar tey ci misaal bu bu doon woo nit téléphone mu lang xar communication bi muy def xar mi di mbee mbee xar mi la ñuy gën a dégg ci wax ji su ko defee da ngay dégg koo koy wax ak yow téléphone la toppal xar moomu te fekk na yow yaa nga ca àll ba xar ma nekk ca àll ba yow nga melni da nga nek xarmi mi yalla moko defal am xar nga xamne suñu borom borom moy moy maya kon bu mag bi waye bu loolu weso tam bu ñu jëlé li nga xamanteni bi moy gor su xar bi moy manam li ñuy wax boli gi loolu mag ñi daan genn du ko don ko ci bant diko ko lan lay jariñ moy ki nga xamanteni bi dafa dem ba am enzyme buy metti ndax enzyme bar na ñoo xamante bi loolu moy seen febar gorsu loolu xar mi am ci bëli gi loolu nuru ab raakool bu yàlla atee ci bisu tabaski bi nga génne ko te laalu suuf nga weer ko ci ker ba mu wow ci ker képp koo xam ne am na problème enzyme boo jëlee sata jaarale ndox mi ci raakool boobu mu wàcc ci kaas kookee am ja tawat googee bu ca naanee ñetti góox loolee dina daal di saafaraw ci kàttanu yàlla ki nga xamante bi itam dafa am problème boo xamante ne bii mooy loxo bu bënn li ngay dégg ñu naan ndiir kot loxo bi daa bënn loxo bënn mooy lan mooy koo xam am am bu am mu yàqu na muy yàqoo nag du ko xam su yàlla attee ci bisu boobu su bu ñu rendee dread mi deret joojee ak fuddën jooju ngay jaxase nga fexe ba tey ko ci sa tenq tenq mooy loxo bi fi ngay dankee ceeb loolu sekkee ni def foofu boo ko tayee ba mat fan weeri minute bu la neexee nga raxas ko loolee saafaru ci bi isnillah ma baamtuwaat ko da ngay jël fuddën xiiw ko boole ko deret jooju sottee ko ci côté xar mi donte dafa jaxasoog suuf si baax na nga tubb ci tuuti rek jaxase ko ak fuddën si nga fexe ba tay ko ci sa tenq soo ko tayee ba mu jàpp ci ba mat fanweeri minute mën nga ko raxas loolee dina tax loo amati dina toog looy joxe di ci xel nga koy joxe ñu ñëwaat ci yeneen point yi mooy ñi nga xamante ni bii itam dañuy ragal ak càcc ci seen kër yaa ngi ko mën a amee ci xarum tabaski waaye na doon xarum béjjinub béjjinub béjjinub càmmoñ bi mooy béjjinub góos bi soo jëlee béjjën bi dem ut tàggum ñu wax tàggum segal tàggum segal mooy picc mu ñuul moomu te bari coow nga am ci juróom-ñaari bant soq ci biir béjjën bi jël bantub gumba bi muy sukkatoo nga dagg ca tuuti lu toll nii sox ca jël saabu bu ñu sangee nit ku génn àdduna fàtte ko kër goo ko suul yàlla mën na laa musal ci ak sàcc te loolu itam béjjinu tabaski yaa ngi ko ci mën a amee soo ko mënta am ci tabaski boobee xamal ne loolee du daal di mën a jàpp ndax ci béjjinu tabaski nga ko xam beneen béjjén bi ca topp mooy bu di joor ba su yàlla attee nga bindu sóortu mulk soq ca def ca ceeb def ca dugub def ca suukar def ca xorom kër goo ko suul du bekkoor bekkoor mooy lan mooy kër gu du am dara waaye kër gu ko def nag day am xiiwal jàmm ja waaye wërsëg wa day dooleeku te loolu yow yaa ngi koy mën a amee ci bi jun tabaski boobu waaye ci façon bii ñu la ko waxee